man catégorie ba bokk waaw bien sûr am naa catégorie ma bëgg mais catégorie boobu xam nga tey ay nit ay di ay lii mais ñi may bëreel nii yow ñi may bëreel nii mm. moom kon kenn mënuma bañ ci lamb mais bëgg naa xam catégorie bi Modou Godi bokk. non man man daal ci li ma bëgg li ma bëgg ñu bëreeg man mooy ay Garga Mbossé numéro un ay Moussa Ndoye. non mais Modou Godi. ñooñu laa soxla nag day xam lekkam. ah mais ñooñu laa soxla ñoom ñoom ñoo bëreeg Poulain Garga barki démb. waaw mais doo non ko daane. dama ko dóor ba mu ba mu ba mu jënd glace ba daan ko. non non daanoo ko parce que arbitre moo lañ jox. waaw loolu gang amu fa. waaw Lo mooy roi des arènes. la am ci ci décision arbitre. Modou Lo waaw ah. du jeex. waaw te mooy roi des arènes. ma ni am nga ndam. mais loolu ndam la loolu ndam la ndam ak. am nga ak bii ñoo yem. noo ko amee baax na. Gris Bordeaux Balla Gaye na nan la ko daane. loolu victoire la victoire drapeau bi maa ko yóbbu sama kër yëkkati sama loxo. loolu victoire mënu ko kii lu ñuy wax dañuy bëri 20 minutes. léegi daan booy boobu daa tax. waaw ah, mais poulet poulet poulet boo sa Moussa Ndoye ñooñu duñ say morom garga mais nañ ma jël ñu xool man duma ko moon sa morom duma laay bakoo su ma jàppee den bi boo bëggee combat doo wax loolu parce que Modou Body combat bi nga mujjee bëre yaakaar naa ne yeggul ci ay 4 million cinq millions matu ko. waaw mais mat na million rek. te million million te et puis làmb ji xam nga amul prix mën nga jóge fii dem fee. Moussa Ndoye di toll ci ay nama baal sax ci kasem bi ñu tudd romb na vingt millions. waaw mais mais loolu des dara man ay waaw man loolu laay loolu laay gis quoi parce que dama ma hmm. sant yàlla bu baax. Hmm. kon donc xam dafa war a dafa war jot ñu jox ma ñooñu. sama xarit ñëw na. voilà macha allah kala tegal ni ay ca sama jigéen. Hmm. xam nga li ma la. kon dafa jot ma ma bëreeg ñooñu. barke xam ne loolu kenn mënu ma ëppaloo ñu ma dara ganuñu ma ñeme lu métti. te li ma def ay Moussa Ndoye ñii li ma def li tax ñemuñ ma jël parce que xam na dama leen di weer. non non mais Modou Moussa Modou Body boo bëggee combat bu neex da ngay wax xale yi nga xamante ne. mais xale yooyu ñemuñ ma laal xale yooyu. am na ay morom ci làmb. xale yooyu ñoom ah, ah, man maa lay tuddal say adversaire non man da nga laaj nga bëgg a bëri yow ñemewoo tudd say adversaire te làmb nekk sa métier. waaw ah, nañ naan nga bëgg ma nga bëgg ma tuddal waaw mais euh, tudd sa wax adversaire dafa baax ci làmb Modou da ngay. waaw waaw mais frère man xam nga man wax naa la man ñeeñu am na ñoo xam ne su ma leen waxee tamit duñ ma jël. Hmm. comprendre nga. comme ñan. non man man daal yow yow lamb ji xam nga la ci ma ko joxee ma bëri. mais ñooñu ma la xam nga tey laajuma la Modou Lo roi des arènes. kan nga laaj. non laajuma Modou Lo roi des arènes. laajuma laajuma laajuma Balla Gaye. Garga Mbossé musul mais mu tuddee ko boppam kooku kooku indi mbër wala gën a garaaw indi mbër moom la tuddee boppam ba pare mu indi ko ñu bëgg écrit kii di Garga Mbossé est que xam nga ni kooku bokk na ci bébé Garga bokk na ci ñi ci gën a doon xale. ñi a doon xale pare neexul bëreel neexul affaire gis na combat bi nu mu demee te dama ko weer keroog. mais ko weeree ah mais dama ko duma ba ñemeetul jël benn risque génn ma fa saako def ma dara. arbitre di ko avertir rek te lam comme li ma la victoire noo ko amee baax na. non mais Modou defal ndànk bébé Garga dafa am 4 avertissement nga am 3. waaw kon ah, Garga bébé Garga. temps bi temps bi temps bi jeex. ñu jox la victoire. kon da ngeen a bëri ba temps bi jeex bu fekkoon da ngeen a yam même même avertissement alors que arbitre bi day jël euh, combat bi match nul lay doon garga benn garga actuellement ci moment boobu ci combat bi coach bi mu ngi koy def si di ko di ko wan ni carrément daf la war a génn parce que xale la combat bi jàpp naa ni parce que bàyyi na xel ni euh, sax am nga trois avertissement ma ne roi des arènes laa ñoom ñoo ñu feete kaw ñooy suñu mag dañu am ay ay ay victoire ci ay avertissement ñu yóbbu seen drapeau loolu victoire la loolu Garga Mbossé mu ngi sama calendrier dama ko daan su ma koy wëññi bu may wëññi ñi ma daan dama ko ciy boole mënu si dara. loolu kay kenn waxu moo tax ma xool tudd ah, ay mbër lañ may mbër de ñëpp bëgg message loolu sax bu ko Moussa Ndoye gisee danaan kii mu baal ma xale bi moo la tudd Garga Mbossé waxul say wax parce que Garga Mbossé mi ngi jox avance Garga Mbossé kañ la gën a bëre Sa la mujjee bëre. waaw mais booba léegi bërewul. mais pandémie bi moo tax. waaw mais fekkee day jeex incha allah dañ ñaan yàlla mu jeex. non bu fekkee bëgg nga ñu waxtaan non non grand compte petit bi da nga koy jëmale ci keneen soo bëggee waxtaan bi neex. man daal dama bëgg ñii seetaan xam ni carrément am na gëm-gëm boo xam ne mu ngi ci yow mais alors nga wax say adversaire wax fi nga jëm ci làmb. barke Seyna Mohamed man Seyna Mohamed mën a dóor. barke Seyna Mohamed man Seyna Mohamed rek laa yaakaar man du ma wax lu ay waxantu bu jël nit pour bëgg a bëree dama def ba xam ma. yow nii yow mii yow gàkku de baax na. waaw yow mii yow euh, kii Boy Dakar. yow mii ñooñu dañ ma jël ñooñu dañ ma ñemee jël. ay boy Dakar ak gàkku de yi ñooñu dama leen di wone ñooñu ñëmuñu tax ak man giita ngaas wala ñu xeex ak man billaahi du ñu benn ñooñu du ñu benn parce que dama bëgg combat boo xam ne dañu mën naan voilà comme ni nga ko waxee kii du moroomu bëri waa ñu xool. ay càndum xam nga man ma xam man ah, am fu ma teg sama que nit nam soo bëggee dem ci kaw. Hmm. soo bëggee dem suñu nag nii ñu ngi ñu ngi ci cinquième étage soo bëggee dem ci kaw foo nga jaar première deuxième. Hmm. comprendre nga ma la. Hmm. yoon bi mais pour pour ñu xam li ne si man comme ni nga ko xamee say morom yëpp Sénégal yëpp xam kan mooy Modou Body foo ñu jox ma ci ñoo xam ne naan du samay morom. ba du ma man sa morom du ma képp ku ma am loolu laa ku man mën na ma wone su arbitre na ma wone hmm. man naanuma ay doom te li may def man naa ko te ay qualité fekkee ay qualité amul benn mbër ci mbalaama ji ku ma ay qualité wala ku ma mën a weer amul affaire day jeex ñu ñëwaat ci géew bi nañ hmm. dem. depuis bi nga bëree ba léegi promoteurs yi ñu lay contacter. waaw promoteurs yi xam nga bi ñu bëree ba léegi saison presque dañu saison bi da waroon tëj. kàggu bisaab bi neex na de waaye. waaw saison bi da waroon hmm. nga. te nee naa promoteur yi tamit man manuma di bëre ay combat yoo xam ne damay dem rek daan. comprendre dama bëgg man daa malgré que sax su ma amee combat dama bëgg daan mais dama bëgg jël ay combat soog comme tout le monde. ay combat yu xaak. waa yu xaak laa bëgg. ñu xool ñu gis ñu xool. ah booy tarkindaa yaa ngi fi. fekkee jël naa combat bu xaak fekkee jël naa combat tarkindaa yaa ngi fi jël naa combat fekkee yu xaak booy jël naa parcelle ngi yu énergie yoo xam ne mais nañ nañ kii ñooy bañ amul man man koo xam ne dama ne mënuma bëre ak moom su pare rek pare naa même fekkee am na booy bi suuf ñeme ma na dëggal boppam rek mais wax ay signature ñi ñëw nga def ni bébé garga di di kii ñemetoo jël benn si ñëngoo jël ku man waxuma yooyu da bëgg ku dëggal boppam li wax mu wax ko du ko mën sama morom du ma arbitre suñu saa. nga a wax Bébé Garga tapet la ko. ah mais du tapet keroog bi entraîneur am di avertissement mu xam temps bi su may am victoire ma yàkkam si sama combat victoire ma ko amee baax fekkoon moo ma jiitale noonu wallaahi fu mu nekk ma fekk fa du ma nangoo kii. c'est la première am amee victoire noonu da nga ah mais lan tax égaliwu

naan pour pour faire être professionnel il faut professionnel. c'est ça ah. loolu loolu mooy problème bi loolu mooy dëgg. promoteur ci moom xam nañ ma. <laughs> nawloon nañ ma te man affaire yi gars yi nekk nekkuma si. Ah, bas TikTok. wallaahi. Mhm. waaw. Euh, mais actuellement ban écurie nga nekk euh, ci làmb. maa ngi école de Sénégal bu nekk Medina. mais école Sénégal bi mm, yan champion ñoo fa ne. non am na ay champion parce que gars yi tey ren saison bi nu mu nu mu kii nii rek am nañ. am nañ xamoon naa fi mbër mu mag. am nañ quatre combats am nañ am nañ 4 combats 4 victoires nii nii nii. kan ak kan a fa bëre. Euh, amoon na ñeneen ñaari booy yu amoon combat mais combat yi gis nga ni lam di demee kii bëri na fa euh, Moussa Ndoye Moussa Ndoye numéro 2 bëri na fa daan. Hmm. Euh, kii bëri fa kii bëri na fa daan encore waaye nu mu tuddati kii. ci lay tur bi lay fàtte quoi. d'accord léegi. mais écurie Sénégal bi nga nekk kan mooy tête de file. man yi de. xam nga tey war naa dem écurie Fass. xam naa Gris Bordeaux ñëw ba koñ. non da ngaa bëggoon da ngaa bëggoon jël cër ci làmb rek moo tax nga dem. ah mais te defi man kër ma écurie de. dafa am ñu fa nekkoon voyagé toog. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. biñ voyagé toog tamit ku gën a ku gën a jege rek gën a yey. Mm-hmm. am naa fa ay ay ay ay jeunes yoo xam ne ay champion lañ. samay morom lañ mais comme écurie affaire du écurie affaire écurie bi boo mënti dem entraîné woo moog zéro yem. Mm. waaw mais su amee combat damay jël samay nit ñoo xam ne ñu ngi si écrit parce que épique la quoi gis nga ay ay Modou ñii ay kii ay Garga ñooñu bokkuñu écrit ñoom ñooy daje di liggéey ensemble. Mm. et comme noonu ma amee combat adversaire bu ma am dinaa xool ñu nekk ñooñu ma jël leen liggéey ak ñoom. waaw léegi ñu ñëw ci bërki démb li nga xamante ne jot na xew. Mm-hmm. say moroomu mbër. préparé combat ba jour yi ñu jékki-jékki na leen làmb gis-gis boobu en tant que mbër tey nga musoo ko dund wala boo ko dundoon comme mbër yooyu nan la lay def. non dundoon moom da ngaa rëcc moom. waaw mais dundoon naa ko sama bii daaw la woon di da nga fàtte. sa combat bi ma bëre la 11 juillet bi waaw am xam nga la woon. mais loo si mënti dégg moom. Mhm. ah métti na quoi. Mhm. comprendre nga métti na parce que nit ku nekk rek da ngay xool su nekkoon yow. Mhm. da ngay xool su nekkoon yow quoi. comprendre nga. parce que di war a préparer combat ba mu des. moom mu des une semaine wala mu des suba la combat bi wala même jour bi ñu ne la combat bi am dafa métti xam nga xam mbër nu dundee hmm. da waaj da dem ci sëriñ yi dem ci àll bi defar ay tiset defar rek hmm. mu nekk lu ñu métti lu nag yëpp vraiment malgré que baa xam nañ ko mais affaire bi amoon ba même jour waroon nañ ko ko continuer quoi gars yi bëre ñu jël ay mesures barrières égal làmb ji hmm. comprendre parce day mel ni làmb rek lañ cité ñëpp gis nañ li fi am soirée yaa ngi gaa ngi tëgg xam nga discothèque yi ñu ngi ñu ngi kii euh, restaurant yëpp kon donc suñu demee rek cible lamb rek na du am loolu dafa am lu mu ñuru quoi tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dañu am ay njiit peut être ñoom ñëpp gis nañ ko parce que lu ne fan kenn ko ji. Mm-hmm. mois ñu jël décision boobu def ko ñëpp la métti. képp kuy mbër di tàkk ngem di xam li mbër di laaj métti na. mais mënoon si dara parce que dañu jiite xam nga état kenn mënu xeex ak moom jël na seen décision mais war nañu xoolaat décision décision mu gën a rafetee nuñ ko jëlee nii quoi. man de loolu laa ko gisee. décision bi daal dem nga arène nationale vacciné wu. non dew woon mais vacciné woon naa prime ci vaccin vaccin yi bi njëkk vaccin njëkk yi. Hmm. demoon naa première jëloon naa première dose quoi. Hmm, deuxième bi kañ nga koy jël. deuxième bi ci mois bi laa ko war a jël sama calendrier mu ngi gàlle. Hmm. waaw. Euh, sa combat yi ak Bébé Garga dañ ci dellu si waat tuuti Bébé Garga dama dem koñam. gis mu baare koñ bi yëpp. amul fu nit mën a dugg si. Ah. combat bi jeex ma gis sa koñu Bébé Garga loo fa doon wut. waa Bébé Garga dama demoon foofu noonu dafa am li ma doon euh, lijjanti foofu man moom fépp laay dem. déedéet loo fa doon lijjanti. kon kay yow. yow mais fu ma demee avant combat ba est-ce que est fa sa tànk. non teguma xam na taxoo sax mu koñ bi. non xam nga xam nga lam moom lamb la rek. lam moom ñun dañuy tegtal rek naan def leen nii moytu leen lii. Mm. comprendre nga. Mm. man Medina laa dëkk mais Ouest Foire laay laay laay laay yeewoo. Mm. Liberté laay liggéeyee. comprendre nga. man fu ne laay dem nag man bu ma fa demee laa xam ne sax Bébé Garga fi la dëkk parce que ma fa dem gars yi ne ma ki nga doon bëreel fi la yi ma xamee booy ne ma Bébé Garga fi ci ginnaaw. Hmm. mais benn moto quoi. avant combat bi demoo këram. non non demoo këram. lan moo kon. ah mais de peut-être day jël ay mesures barrières am rek ci côté kii xam nga mbër yi moom te ñun moom ay séeréer lañ lépp ñun ñu wax dañ koy def. Hmm. loolu moo tax peut mu xam loolu. mais ñi mu indi noonu xamante nañ. xam nga xam nga Bébé Garga moom franchement man mu ngi sa ginnaaw mu ngi sama ginnaaw yal na ko yàlla jàppale aussi mu ñëwaat rek. parce que champion la. comprendre nga. Euh. mais daan bëri nañ daan naa ko man ci kanam laay xool quoi franchement. Mm-hmm. waaw mais donc yal na ko yàlla defal jàmm rek. moom am naa moom benn problème bëri nañ bëri bu ko wax métti am naa fi ndam ci kawam. Mm-hmm. waaw on est. Euh, yàgg nañoo waaj daje bi xëy yàlla suñu borom dogalu ko euh, kontaan naa bu ci dalal bi ndax xam naa ni actuellement maa ngi séntuwaat beneen combat Modou Body am adversaire bu xaat bu weex xat waaw man ngeen ñëw waaw man moom man moom franchement bàyyi ji li man loolu laa ñaan yàlla mm-hmm. barke Seydina Mohamed combat yu ponkal xam nga ci ponkal li ma ko waxee keroog ci ponkal li laa bëgg xam nga nañ ma gars yi may sens ma bëree parce que amul leen lu mu mbër di mën a jaay mm-hmm. du palmarès du du ay nit du du correct du leneen man exemplaire la am ñu xam ne wax naa la ko man ñu xam ne man suñu duggee stade man maay bëri gis sama supporter yi. xamuñu fa man man wax lami nami am ñaar nami des jeunes filles xale yu jigéen yi maa leen nuyu ñëpp képp may béggee rek comprendre nga man mm. waaye di loo ma sama bopp te et comme li ma dafa am lu ñu tax man ñu topp ma mm. parce mbër boo xam ne da dem doo def fula doo def fayda kenn du la topp mm-hmm. comprendre nga ma mm-hmm. kon donc gars dañ ma war a man nag nekk ma fi pour benn benn promoteur. Hmm. malgré que xam nga promoteur yëpp ñu ngi may tëgg. Hmm. mais li ma bëgg mooy ñu jox ma ci combat yoo xam ne ay combat soxla ñu ñu kii fekkee amateur yi bëri bëgg bëri ak dóor. Hmm. combat bu xaak nañ ma seet si. incha rabbi ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax kontaan naa bu baax ci waxtaan wi waaw kon hmm. xam nga mu ngi noonu rek man tamit parce que ku ku bàyyi itam yëpp ñëw seet si la. Hmm. je pense que amoo fayam te yow sama waay comme ñun. nga kon affaire yi fi nga ko la. kon hmm. continuation rek lañ lay wax. dañ lay dañ lay suivre di la waaw man nag su loolu weesoo tam bëgg naa remercier samay nit ak lépp fekkee. may nga ko kii waaw parce que fi nga ma fekk fii ah. voilà fi ma fekk fi nga fekk fii ah. fii mooy mooy mooy madame Fall. xam nga sama waa ji nga xam ne mooy jàppale muy maas ko kii képp xam na sama diggante ak moom Mm-hmm. sama combat bi passé un million la ma may un million du ay fo de. un million la ma jox ay mbër yu mag a ngi fii kenn du leen jox sax cinq cent mille. mooy ma un mm-hmm. million. comprendre nga pare woo ma ne ma lan nga soxla kii kii ma nekk fii bitikam mooy mooy mooy deuxième femme. ndeysaan muy bébé Binta. Mm-hmm. xam nga capuchin la et puis gis nga vaisselle yu amul fenn lay jaay. ndeysaan allah donc moom. nit nit soo bëgg sa jëkkër. Mhm. du question dama ko bëgg lii rek da nga koy da koy jàppale ci ay nitam. ndeysaan moom bëggul lu lu ma metti te moom tamit daf ma jàppale mënoon na jëkkër jàppale na ma de. Mhm. moom tamit daf ma jàppale jox ma xaalis fekk ma daf ma woon ma ma fekk ko fële si Blaza. waaw falaa fekk mu jox ma xaalis barke Seydina Mohamed. te chaque weer daf may fay. nu ma liggéey dara. damay dem entraînement ñëw fii pour toog fii rek pour kii am. Mhm. parce que si ñoom laa bokk. kër gi xam man ñaari kër la am su ma nee fanaan Liberté su ma nee fanaan fii. dëgg la ku ma góor doo ma jàpp naan dina su bëggee rëcc day bari pa. Mm-hmm. ñoom ñëpp ak personnel bi fii liggéey yëpp que moom càq-càq yi léegi fekk la fi. Mm-hmm. ku mel noonu état da ko war a jàppale parce que dañu bokk ci Sénégal. xam nga li ma la wax. Mm-hmm. koo xam ne da fay ay ay càq ay soixante mille ay cent mille chaque jour. loolu état da war a jàppale. te ñooñu dañu yor ay kër. personnel bi ngay gis fii ñi doon nettoyer ak ñi ngay gis ñëpp fi la ñu liggéey chaque fin de yàlla xam na ko xam nga kooku soo nekkee ak moom kooku état dafa war a jàppale. Mm-hmm. voilà loolu daal maa ne ku limul rek. xam nga nga xam dama jiw maa ngi sant sama waa dëkk aussi waa Ngunjaan. Mm-hmm. yëpp sama waa écrit ak sama benn copain ku ñuy wax Sam. Mm-hmm. ak magam Roxya. tamit sama waa kër ñëpp daal maa ngi ziar ñëpp. di bëgg ñëpp di leen di leen baalu di leen baal di sakku ñaan ci ñëpp nag. képp kuy séeréer ñoo séeréer dafum comme tout le monde. xëpp roof noo séeréer rek kam bugg a damtaam parce que xam nga ajee ma doon maa ngi dalem te bugg am ma fad kono mi hoya seeɗo fof to damtamo mm. ndu koto refna par ce que lam kaji réalité mm. voilà ina mom langoli saɗarero ma i damtange comme rek yega ho in kam gewan rek mm. inchallah gewan a fiyo fikano waaw mi ziare a ñëpp na waat na faa ñëpp xaq aussi ni sa ko ñaan na tout le monde jaajëf gaay jërëjëf wasaare làmb gis ngeen moo Modou Body laa dalaloon mu nekk xale boo xamante ni keroog bi ma ko gisee ni mu bëree comme mbaam ak bébé garga laa ne kii tard ci làmb dinaa ndax cër gi nga xamante ne jox na ko adversaire bi cër bi nga xamante ne jox na ko bis bi dayo bi bi mu dugg see nga xool ko xool colpirance bi nga xam ne vraiment champion la ci làmb tey tànk bi mu teg bu ko teggiwul fépp fu ñuy dégg champion ci làmb dina ko dégg te loolu lañ koy ñaanal mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois di sant sama cadreur euh, kàggu nga xamante ne vraiment lu mu jëlul baaxul euh, di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di ko masawu ci xeeru digg bopp boobu nga xamante ni daloon na ko Jurbel ba def ko statut ñu bari daal ba ji li baaxoo mais loolu ak liggéey bi ñoo ànd dem làmb ju dóor la xeer ci digg bopp bu toj ñu jaaw ko yooyu yëpp ci liggéey bi la bokk ñuy wax ni ñun ñëpp rek famille lañ làmb ñun ñëpp famille lañ mun nañoo xuloo mun nañoo xeex waaye mënuñoo xastante bari na ñoo xamante ne ay tubaab yu ñuul lañ noonu rek laa ko mën a waxee parce que suñu sañoon tey làmb def loo xamante ni bu ëllëgee dañ naan xoolal wax naa leen duñ ay nit wala ay nangam nangam sàmmata yooyu amut parce que complexe weesuwul tey euh, étranger jóge bitim réew ñëw fii ki jóge bitim réew ñëw wàcc Sénégal nga jënd tey yenn boisson gazeuse yi jox ko mu naan foofu la ëppee waaye tey gis nga ni ñu seetsee Modou Body ñëw. mu indi lii bisaab la jus naturel la fii lañ ko defaree ci réew mi. fii la ñu ko bayee defee ko fi lii bisaab la aussi tamit fii lañ ko bayee defal ko fi nga indi tey koo xamante ne euh, bitim réew la jógee jox ko ko mu naan nga ni ko lii lan la mu ne la lii bisaab la wax la li mu ko composé ba mu naturel ba mun ko naan loolu dina ci kontaan. ngala nañu ko jàpp bañ a jéggaani ji lenn bëre dóor fépp la am fépp foo dem am na bëre dóor. waaye bëre boo xamante ne da ngay gis Modou Bodi dugg si ci làmb seex béjjën bi yor laar bi takk sengoor bi euh, ngay gis ay décor yoo xamante ne vraiment ay décor la ci làmb ñoo ñu xale yi tey nañ leen jàppale surtout état nañ gën a jàppale waat xale yi nañ gën a taxaw waat xale yi waaye bu bëre taxaw bu bëre amul xale yi dañuy defi leneen duñ defi leneen parce que xale yi seen i waajur rek lañ bëgg a jàppale. bu làmb amul dañuy dem defiwaat leneen gañ seen vie parce que ay borom jom lañ ay jàmbaar lañ ay borom fit lañ parce que boo boo gisee ay xale yoo xamante ni saa su ne ñu ngi xeex ñu ngi fayit ngir am teral seeni waajur état daf leen war a jàppale. mbokk yi loolu nag dafa nekkoon loo xamante ni mënu ma koo ñàkk bañ a jàllale di leen jaajëfal bu baax encore une fois di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba ëllëg si beneen xew-xewu jërë ngeen jëf.